جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة أرصاد إلى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 mbokk yi centre nafsul mutmainna na euh, siwaat na di def comme na mu daan def rek di dimbalante ak mbokk jullit yi ci wàllu faj ak faju xam ngeen dund bi bokk na ci li ëpp essentiel mooy nit ki di faju beneen bi xam nañ ni faj dafa cher faju dafa cher moo tax ñu taamu di wax ak nit ñi ci ay plante yu leen di jëriñ ndax sunu way juru daana ko def te it nag loolu du ñu yàqal dara tey ñoo ngi ñëw ci njëriñu grenade mooy bienfait yi nga xamante ni nekk na ci grenade vertu yi nga xam ni garab la boo xam ni dinañ koy am ci kër yi rarement waaye ñu bëri ci nit ñi dañoo foog ni fruit wi la rek bu ñuy lekk dencul ay njëriñ te fekk denc na njëriñ yu baree baree bari bokk na ci sama wayjur gisoon naa <coughs> mu daan ci faj feebar boobu ñuy wax sopils sopis nga xamante ni maanaam feebar la boo xamante ni dina ñëw ci góor léeg-léeg dina ñëw ci jigéen xam ni saw yi day dagg di tàng boroom mun na dem ba aw ne wi am na sax ñu koy wooye prostate feebar boobu gis naa góor gi di ko ci faj nga xam ni bu fekkee ni nit ki dafa amee prostate walla wala bi billah feebar la boo xam ni góor ñu bari daf leen di faral di sonal surtout nag bu ñu duggee quarante cinq ans jëm kaw ñu duggee quarante cinq ans jëm kaw lu ci bari kàttan bi ñu amoon dootuñ ko am saw yi mën na di yokk di bari guddi bi nit ki mën na cee jóg nit ki bu amee cancer prostate rek lu bari ci guddi gi dinay jóg di saw léeg-léeg saw yi dinay dagg ba nelawam dootul normal léeg-léeg saw yi day des def ci kanamam su jógee mu toqaat loolu la ñuy wax sanasul bawul loolu bu laalee góor la chaque ni dafay répercuter ci kàttanam ci wàllu sëy grenade boobu bu fekkee nit ki dafa amee prostate na koy njëkk a digal grenade bi ci boppam muy lekk fruit bi su ko mënee deux fois par jour mu koy lekk baax na ci trop waaye bu ko defee xollitu fruit bi waxaguma xob yi mais xollitu fruit bi par exemple grenade bi boo ko jëlee nii boo ko xaree ay doom la doom yi dafay def ndox ndox boobu rekk day régler day tax nit ki sawam dana yomb day raxas ndox mi ci yaram bi micro yi nekk ci deret bi daf koy dindi insha allah rabbi kon mu dirrun lil bawl dana tax saw di gaaw bu nit ki soxlaa saw mën a saw ci temps waaye su ko defee grenade bi jëmmam ci boppam am na ay xisr ay xollit yooyu boo ko jëlee weer ko ba mu wow soo ko weeree ba mu wow loolu am na ñaari njëriñ benn njëriñ bi poudre bi rek nit ki bu koy naan di ko jël def ko poudre noonu saa bu xëyee mu naan ci su reeree mu naan ci loolu day tax prostatam dafay gaaw a jeex li gën a yéeme nag gis nga xollit boobu ma la wax noonu moo gën a gaaw éradiquer li ñuy tuddee euh, hémorroïde gis nga euh, xollit boobu boo ko jëloon weer ko ba mu wow soo ko weeree ba mu wow danga koy teg nga jël sungufu njàndam tuuti nga mélanger ko ak poudre boobu sungufu dànq tuuti nga def ko par exemple am nga parce que boo gisee ma ko expliqué nii lu ñu bari léeg dañuy kii ba pare ñu lay laajaat léegi boo jëlee xollitu fruit bi weer ko ba mu wow dëbb ko soo ko dëbbee am ci lu tolloog kaasu attaaya nanga nga jël sungufu njàndam lu tolloog kuddu kafe sungufu dànq lu tollook kuddu kafe loolu boo leen jëlee boole leen ñoom ñaar loolu nga di ko ñaan après chaque repas incha allah lépp lu tudd hémorroïde bi idnillah dana ko traité mbokk yi grenade bokk na ci li muy faj hépatite hépatite nga xamante ni feebar la boo xam ne ci foie nit ki lay nekk lépp lu aju ci wàllu cancer wala wàllu hépatique grenade boobu mbokk yi dana ko traité boobu nag xob yi ngay jël ak xas bi doo ko booleeg leneen pour hépatique xob yi xas bi rek da ngay jël ci xasu garab bi jël ci xob yi garab yi baxal ko ci deux litre ndox boo ko baxalee ci deux litres ndox cinq fois nga koy naan avant ngay tëdd dangay naan kaasu attaaya boo yeewoo suba teel dangay naan kaasu attaaya soo ndékkee naan kaasu attaaya soo añee naan kaasu attaaya soo reeree naan kaasu attaaya noonu ngay def bu jeexee nga defar bi iznillah lu aju ci cancer wala lu aju ci hépatique bi iznillah dana ko dindi beneen bi bokk na ci bu la neexee nga jël rek xobu grenade nga boole ko xobu carotte ak xobu euh, am na nuñ ñu koy waxeete batanse euh, kii bu ñuul boobu ñuy lekk batanse xob yi ak xobu carotte ak xobi grenade moom ngay boole aussi moom it trois fois par jour nga di ko naan su ko defee fruit bi nga di ko lekkaale kooku mbokk yi baax na ci li ñuy tuddee feebar bu aju ci wàllu xol wala bu aju ci wàllu poumon baax na ci beneen kéemaan bi nga xam ne nekk na ci grenade mooy dafay régler cerveau nit ki bu demoon ba am ñàkk nelaw walla mu dem ba amee problème bopp bi ci boppam commencé déranger mu am problème neurologie kooku li gën a baax ci moom mooy nay lekk fruit bi ñu jël xob yi boole ko xobu karasol di ko baxal mu koy naan incha allah loolu dana ko régler beneen bi mbokk yi xam ngeen ni wàllu calcul urinaire par exemple moom it dana ko faj beneen bi bokk na ci euh, grenade mbokk yi aphrodisiaque la dina dolli góor kàttan dina dolli jigéen kàttan kon fruit bi ñam bi baax na waaye xob yi la même chose baax na beneen bi bokk na ci kuy lekk te du rees amee problème feebar indigestion nga xamante ni nit ki day lekk ba pare mais munul munul li muy lekk munu ko reesal benn pancréas bi dafa am problème wala lenn ci kii bi am problème ba bu lekkee dafa yéex a rees kooku suy def bu lekkee ba pare mu lekk benn doomu grenade incha allah dafay dindi yooyu yépp mbokk yi pour problème ku amee ballonnement la même chose borom ballonnement moom jaru muy def dara na jël doomu grenade bi rek mu daal di koy lekk ku amee problème mu gaz gaz buy def ci biir wala wàllu cholestérol la même chose da ngay jël xas bi ak reen bi xas bi ak reen bi ngay boole bu fekkee wàllu gaz bu ne ci biir bi la da ngay jël ci xas bi jël ci reen bi boole ko ak sungufu gaw sungufu gaw mooy arak boo leen boole incha allah loolu loolu baax na ci feebar boobu nga xamante ni gaz buy génn ci biir la cholestérol la même chose baax na ci kon mbokk yi ñu yëg ni grenade garab bu baax la garab la boo xamante ni fruit la boo xam ne nit ki mën na koo jëriñoo ci lekk waaye li mu koy jural ci ay njëriñ wax dëgg yàlla bëri na lool lool lool lool noo ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala liñ fi joxe ci wàllu xam-xam ci wàllu faj yal na yàlla defal ñu ko suñu miisaanu xasanaat waaye defal leen ko yéen tam ñoo ngi ñaan yàlla yàlla barkeelal képp koo xamante ni jëfandikoo na ko bëgg koo fajoo yàlla na ci yàlla def wér ñu xam ni nag garab yi ñuy wax nii benn bu ci nekk li muy faj la ñuy wax waaye secret faj dëgg dëgg dëgg mi ngi dellu ci borom bi subhanahu wa lan mooy loolu jullit bi dafa war a bàyyi xel su feebaree na def autocritique jàngaat boppam jàngaat boppam mooy lan wa ma asaabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum borom bi nee na bépp natt bu leen dal yéen a ko def kon bu lu mel noonu amee feebar dal la ngay faju ba sonn mu të jàngataatal sa bopp ana fan la amee faay sa diggante ak sa borom ana fan nga bàyyi ko ndax yaa ngi saraxe loolu benn mbir la te jullit dafa war di saraxe ndax yaa ngi woor loolu ñaareelu mbir la jullit dafa war a woor ndax yaa ngi def istigfaar di jéggalu yàlla loolu ñetteelu mbir la ñeenteelu mbir bi mooy ndax sa digganteeg nit ñi yaa ngi ciy def lu baax ndax yaa ngi ciy wax lu baax ndax doo def jikkoy naafiq ndax doo jaxase nit ñi ndax li ngay wax gëm nga ko yooyu dafay delluwaat ci wàllu faj waaye bi ci gën a rëy te ëpp ci solo mooy istighfar jéggalu yàlla subhanahu wa taala dafay dimbali nit julli ñi nañu góorgóorlu ci jéggalu yàlla di tuub di dellu ci yàlla surtout guddi yi soo toogee ba guddi yow mi feebar nit ñi tëdd di nelaw mënoo nelaw bul tëdd rek di onku soo mënee jóg jógal jàppul soccul ba mu set nga jàpp jullil ñaari ràkka dëppal sa jë ñaanal yàlla tuubal jooyal bi idnillah loolu feebar bu mu dul faj amul kon ñoo ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla nañu fajal suñuy tawat beneen bi xam ngeen ni li tax àdduna bi léegi ñëpp feebar surtout Afrique moom mooy xeex bi nga xamante ne presque Occident dañ koy def mooy suñu lekk yi pratiquement dara dara dara dara dara baaxatu ci suñu lekk yi lépp dafa sucré suñu lekk yi lépp dafa am problème kon yu mel noonu bu amee nag daanaka monde bi nga xamante ne moo tudd monde faj day am ay jafe-jafe yal na yàlla defal ñu jàmm defal ko mbooleem jullit ñoo ngi ñaanal ñëpp jàmm yal yàlla dajale ñu àjjana ak mboolem jullit wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu